Adam Jegan Wanli, Ly eh, nek derrière madame le ministre Masar. Massar di ya, and ak moom. Eh, bisu tay bi nak li fi dajalé moy niñ ko daan défé rek bis bu nek madame Maria Massar su ma wa Kaolack dañuy ñëw wa Dakar dañuy ñëw ñun ñëpp ñu dajé fi fasiyene nak ah suñu sëriñ. suñu lépp xaadimul xadim bés bi ndax bis bi a ah, moom kat moo santaane ah képp kuy murit nga santale ko yàlla loolu nag moo waral rekk ñu fi ñëw di def ak cant cant gi nag ki nga xamante ne mooy madame Mariama Sarr di murit bu wér madame Mariama Sarr mu sëñ Saaliw moom at bu jot nii la koy defee amul nag lépp dara lu muy bàyyi lépp lu sëñ bi digle mi ngi ci ni ko sëñ bi di waxee ginaar ba ci giléem mi ngi ci. boole koog nag nit ñi sax moo leen di jox oto yu leen indi loolu mooy wane ne am na Pastef ci bis bi lool boole koog nag di ñaq ñaqam ma ngi ca séddale ba ma ngi ca defar ba soo ne ko bàyyi sax mu ne dama bëgg a barkeelu a ah, dama bëgg a am si njariñu bis bi loolu nag gëm-gëm moo ko waral moo ñu fi dajale nag Dakar a ngi fi Kaolack a ngi fi ñëpp a ngi fere ñu fas yéenee màgg rek comme niñ ko daan defee rek ku ne dégg na Mariama saar mu sañ Saliou muy dëgg ci moom nag mu nekkoon taalibe sëñ Saliou commencé ko ba muy nekk étudiante ba léegi la jébbalu woon ci sañ Saliou a ah, sëñ mu am lool fu mu ko boole nag ci njabootam taalibe googu nag di lu dëgg ci moom moo waral mu fonk màggal gi lool lool lool bu màggal gi jotee amul dara loo xamante ne rek. du ko def lépp loo xam ne rek sëriñ bi santaane rek da koy def te loolu nag sant yàlla la parce que kuy murit lii warulaa jaaxal ku ne xam ne sëñ Tuubaa moom ah lu ko waay lebal mu fay la ba wis la. il faut nit ñi def benn différence madame le ministre dafay nit koo xam ne ñi muy àndal daf leen def si njabootu boppam dañu dépassé ay responsable ak mili fi mu ne nii yaay la ak ay doomam yaay ak ay càmmiñam yaay nit ak ay sëram lépp loo xamante ne rek mi ngi koy def ak nit ñi fu mu nekk dinañ ko fa fekk parce que moom moo leen ko ji loolu moom moo ko waral tey li muy def it yàgg naa liggéeyal sëñ Touba nekkul ministre bon bu nekkatul ministre du ko tere def li mu doon def yàlla seede na ne màggal gi li mu ci lim da lim ci daan defeeg la ca def dara wàññeeku ci su yokkuwul dara wàññeeku ci loolu nag ngëm-ngëm moo ko waral. maa ngi tudd Adja caam Thiam nekk responsable politique APR ca Dekkal Ngor ba laa ànd ak madame la maire madame la ministre Mariama Sarr ndax maa gi tey jii ku ne xam ne ni bis sëñ Touba la te moom dara ñor ko ku dul sëriñ Touba muy doom ci sëñ Saliou Mbacke. sëñ Saliou am fu mu ko tegoon. madame Miss boo waxee màgg rek wax Mariama Sarr Mariama Sarr rey na nag président ministre euh, Mariama Sarr rey na gëléem rey nay xar rey na ginaar bi yaa nga ne dara desul. boisson yi dafa tegale ndox yi dafa tegale lépp xoolal dañoo lekk lekk macha allah ba gan yi gis euh, kër Mariama muy madame la ministre Mariama Sarr day tibb sax di jox. kër gi mu dendal ñëpp macha allah du lekk moom kese ci këram mukk kër yi mu dendal ñëpp kenn ku ne dina fa yóbbu ay palaat te plate yi mu la yóbbu nag boisson ca lay bokk ndox ca lay bokk lépp ca lay bokk kon nag sëñ tubaa mi am fayam yàlla na ko sëñ tubaa fay lépp lu mu ñàkk ñàkk ci bisu sëñ tubaa bi yàlla na ko sëñ saaliwu ji remplacer ko lu ko ëpp njortam kontaan nañ si moom màggal moom boo waxee màgg man mi di wax ak yeen sama keur baye ngi ne garas Dakar bu njëkk ba sama keur rek nga ne ca xay ga waye duma dal fenn xam fu may dal muy sunu maire sunu ministre Mariama sar ndax moo ñu ko ji. man mbeex la tuddu ñu may fan ben mbekté rek lañ ko dundé ndax magal gi chaque année fi lañ koy passé chaque année dañuy jël kaar jëlee Dakar ñëw fekk si waa Kaolack yi yàgg na nag ça fait des années depuis ñu xamante ak dem la ministre ba léegi dañuy ñëw ni màggal si di gàmmu si Kaolack te lépp moom la bu ko neexoon du ko def nag xam nga fi mu ne état amatul waaye tey la ko gën a mun ba état amee daf ko doon def ba léegi état amatul tey bu ko neexoon ne du ko def mais tey la gën a màggal la mu daan def daf ko triplé sax moom nag mënuñu koo fay parce que moom ministre à vie la ndax ministre bu baax la bu respecté ay ay responsable am ndax am na nu mu doon demee kon du ñu gis fii fii gis nga ñëpp niroole yére yi te te lii lay def ak ñun ça fait des années kon moom mënuñu koo fay de. léegi taxawaay bu rafet rek ndax entourage bi yëpp jox na leen ñëpp lay jox moom dafa social moom elle est sociale bi yëpp daf leen di jox. ñun ñii boo gisee ñuy jóge ba Dakar di ñëw fii ñii dëkk yëmbal ñii fii ay responsable rek ñoo fi nekk gis nga kii toog nii honorable la euh, conseil économique social kële moom la kële moom la ay kilifa ñoo fi nekk de ñii ay bu ngeen paree ngeen dem interpeller leen mais boo gisee ñun ñëpp ñu daje fi si ci moom la du ñu du lu ñàkk fayda ci Fouta la moo ñu fi dajale parce que bu ñàkkoon fayda wala mu mel ne nii duñu jóg kon ñun duñ fi ñëw mais daf ñoo téye téye bu rafet di màggal màggal gi dañ ko yàgg de ba ñu ànd moom ba ñu ngi ñëw fi di ñëw fële Kaolack di ko fa passé kon madame la ministre gàcce ngaa laa ma man maay Mariam Diane dëkk Tëngéej waaw di responsable politique di ànd ak Mariama Sarr. ñu koy ñaanal nag ndax Mariama Sarr démbam ak ñëpp mi ngi ànd ak ñoom ba tey Mariama Sarr ñi mu àndaloon démb ba léegi ñoom la àndal boo seetee jotaay bi xam ne ñun ñëpp Mariama Sarr nitu démbam la ñu ñoo ñee ko fii tey di màggal màggal gi. ñun nag ñu ngi dëkk Tëngéej ànd ak suñu responsable Kiné Guèye. dama ne la géej la rek xam nga géej ku gàtt xel ne Mariama Sarr maa ko moom ndax Mariama Sarr taxawaayam. rafet na rafet go xamni gi ñun ñi ci suñu bop keetu ku ci nekk jox na la sa gëdd xam li nga doon xam na li nga man xam nga li nga doon ñukoy ñaanal mariama sarr li ma wax rek mu mënuma ci wat dal. dañ koy ñaanal dal dañ koy ñaanal parce que sëñ touba musa am manqué lu ñu dara xifu ñu mar ñu la sax lek nañ ko fi sha allah ke mom mo juroon sax di serbi ñu lek mom moom mariama sarr te bu ko neexon bu ko togon amna amna ñu ko defaral ndax mo bëgg ñëpp jàppale ñëpp yalla nako yalla Mariama Sarr yal na ko yàlla téyel boppam génnewul kenn sànniwul kenn boddiwul kenn ñëpp la bokkal ndey ak baay ministre boo xam ne da ngay toog ñëw di bokk ak doomu aadama yi di lekk ba mu nekk ministre laa la wax ñëpp ñun ñëppay toog di lekk ensemble kon yal na ko yàlla jàppale Mariama Sarr ko xaal yal na xaddi yal na ko sëñ saali fay kontaan nañ trop macha allah.